mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu llahu taala wa raahu ak mbooleew njabootu borom Tuubaa di am mbégte lool di nekk ak yéen ci jataay yu mag yi yi nga xamante ni daayira muqaddamatul xidma moom moo koy taxawe tey jii bokk ci ñeenteelu jataay bi ñu fa yéene ko ànd ki nga xamante ni moom moo nekk sama loxo càmmoñ muy sëriñ Ahmadou Mbacké Daaru Mooti mu nekk koo xamante ni kenn du ko présenté ci jataay bi waaye kenn du ko présenté ci jumaa ji waaye kenn du ko présenté ci murit gi rawatina ci jàng ak gëstu naka noonu tamit kilifa gi nga xamante ni moom moo nekk suñu loxo ndeyjoor di ko ziyaar di ko jox wàccu waayam tomb bi ñu fas yéene waxtaane nag muy sëriñ Cheikh Bara moom Serigne Abdou Karim Mbacké ñoo ngi koy ziyaar di ko jox wàccu waayam waaye di ziar sëriñ Afiya Buso mi nga xamante ni moom mooy jëwriñu daayira muqaddamatul xidma tom bi ñu fas yéene ànd ak sëriñ Ahmadu nag muy tom bu am solo muy maqaamu tawakkuli wa tajalliyaatuhu fi xayaati Cheikh al mooy maqaamam tawakkul muy wàkkiirlu ci yàlla ni amee solo ci dunduk sëñ ndax sëñ mboolem yi nga xamante ni ay pëj lislaam la benn bu ci nekk daf ko jëmmal ci ak dundam jëmmal goo xamante ni mësuñoo gis ku ko jëmmale noonu loolu moo tax dana baax ñu fas yéene koo waxtaane jàngat ko ngir képp koo xamante ni ab jullit nga rawatina nga di taalibeb sëñ juba nga xam ni lii ñuy waxtaane muy tawakkul muy wàkkiirlu sëriñ bi jëmmal na ko ci giirug ak dundam yépp waxtaan wi nag duñ ci sori ndax kiñ koy séqal liñ ko jox ku ko man la te yàlla dogal na tamit yàlla defal na ko tawféex ci waxtaane lu aju ci dunduk sëriñ bi waxtaan wi nag def na ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi dana leeral lan mooy tawakkul ndax lenn lu ci nekk soo koy waxtaane dana baax nga xamal nit ñi lan mooy li ngay wax ñaareelu tom bi moom mooy dëggi-dëggi tem bi nag mooy Sëñ Tuubaa ni mu dunde tawakkul ci ak dundam loolu lépp nag duñ ci yaatal dara dañuy jébbal kàddu gi Sëriñ Ahmadou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 di jaar ci moom di siyaar muqaddamatul xidma ak sunu mbokk yu baax yi nga xam ne séen nañ leen ci jataay bi yépp di wax ne ni ko sëñ may waxe dañoo waxoon nañ waxtaane maqaamu tawakkul wa tajalliyaatuhu fi xayaati cheikhi ahmada bamba radiallahu anhu wa ardaahu mooy jëmmi tawakkul ci boppam ak ni ko sëriñ bi jëmmale foofu ni sëñ may waxe faw nu njëkk a xam lan mooy tawakkul faw ñu xamit solos tawakkul muy lu ci suñ borom tabaraka wa faw nu xam itam lan moo dox diggante tawakkul ak tawxiid yooyu bu leeree rekk day yomb ñu xam ni ko sëriñ bi jëmmale tawakkul dafa bokk ci maqaamay góor yàlla ñi nit ki dina nekkub jullit yàgg ci lool di góor góorlu te du nekk mu tawakkil kon tawakkul dafa bokk ci maqaamay góor yàlla ya bokk ci maqaama yi gën a kawe sax ci maqaamaatil yaqiin gën caa tedd gën caa eh, sell ndax sunu boroom tabaraka wa taala dafa wax ne ña ca àgg ñooñu moom ñu mu soppal boppam lañu maanaam da leen a bëgg inna allaha yuhibbul mutawakkilina ñooñee àgg ci maqaama sunu boroom moom da leen bëggal boppam yëmul ci loolu sunu boroom nee na ñi àgg ci daraja jooji daleen leen a féetaleeg boppam wa ala llaahi falyatawakkalil mutawakkiluuna wax ne wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu da leen a féetaleeg boppam aj leen ci boppam xëcc leen ci boppam taf leen ci boppam doy leen sëkk itam féete leen fépp itam képp koo xam ne sun boroom fa huwa xasbuhu ji mu wax koo xam ne sun boroom moo la féetewoo féetewoo say mbir doo amati gennuk jaaxle ci geneenug wet fa man kaana allahu taala kaafiihi fa huwa shaafiihi wa muaafiihi wala yusalu amma huwa fiihi ni ko abu taalibin makki waxe kon maqaamu mu réy la te itam sunu borom daa digal ñëpp ñu dox jëm ca wax na ci alxuraan ne fa tawakkalu in kuntum bu dee gëm ngeen yàlla na ngeen jox na ngeen dox jëm ci maqaamu tawakkul in kuntumu amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum ci bërëb yu bare bare bare kon sunu borom da koo digle rasulullahi sallallahu alayhi itam soññee ci wax xéewal yi ne ci tawakkul bokk na ci li mu wax ne yowmal xiyaam day xadis bi Buxaari net li ak muslim ne yowmal xiyaam day dana am jaam ñoo xam ne suñ borom du lijjanti seen mbir ci genn wet danañ dugg àjjana kenn du leen xisaab kenn du leen lijjanti ci genn anam saxaaba yi laaj ko ñooñee ñu mu doon ba mu koy wax dafa wax ne wa ala rabbihim yatawakkaluuna loolu loolu la mujjee mooy ñi wakkirlu ci seen borom yonente bi wax ne itam bu ngeen wakiirlu woon de dëgg dëggi wakiirlu suñu boroom dana leen jox wërsëg ni muy wërsëgalee njanaaw yi kon tawakkul dafa bari lu ci aju moo tax rasul lay sax daana ko ñaan gis nañ ci ak ñaanam mu wax ne allahumma inni as'aluka tawfiqa li mahabbika min al amali wa sidqa tawakkuli alayka kon maqaama moomu mat naa xam asalafu <clears throat> saalix gaa ñu baax ñaa dañ daa wax ne buum gi nos peri tawxiid doxub tawxiid buum gi ko nose mooy tawakkul sayidna abu darda daana wax ne njobbaxtalul imaan boo fa demoon ba àgg fa ñaar nga fay fekk mooy sellal ak wakiirlu sayidna sahlu bnu abdullahi tustari daana wax ne lépp xam-xam buñ ko boolee benn bunt la ci biir jaamu yàlla waaye jaamu yàlla itam bu ñu boolee léppam benn bunt la ci biir ak sàmm waaye ak sàmm itam buñ ñu boolee léppam benn bunt la ci biir ak dëddu dëddu àdduna waaye neen dëddu itam bu ñu boolee léppam benn bunt la ci biir tawakkul muy wakkirlu lii nu jot a wax dañ ci xame ne kon waras naa xam lan mooy tawakkul tawakkul nag ni ko imaamul Ghazali waxee lu jafe xamle la dund ko itam moo gën a jafe moom li tax mu jafe xam xam xamle mooy sabab yii danoo jege yow li nga xam mooy day taw nga doo a mën a bay doo a mën a am dara da ngay jaay doog a am dara dégg nga sabab yi dañoo jege te sukkandiku ci sabab yi loolu shirk la jàpp ne sabab yi mooy maye. loolu shirk la moom mën a nekk shirkul xafi waaye mën naa màgg ba àgg ci shirkul jëli moom bañ a bañ a gis it maanaam maanaam bañ a gis sabab yi itam gis ne yàlla képp moo mooy def lépp moo la dóor mooy mooy joxe mooy def nangam loolu itam mën na laa jur ci ñu jam sa diine ak sa paspas man mën na laa dugal ci beneen bunt itam te gis sabab yi te doo ko gis ñaar yooyu itam xel mënu koo jàpp li ci <laughs> moo tax imaamul Ghazali ne li gën a jafe ràññetle mooy tawakkul tawakkul buñ ko doon firi mi ngi jóge ci wakkala fulaanun amrahu ila fulaan sa mbir nga dénk ko keneen loolu la baat bi firi sa mbir nga jël ko dénk ko keneen féetale ko sa lépp sukkandiku ci moom ci lépp loolu nag bu dee ci tawakkul ni ko gii ñuy wax nag moom xol bee koy def xol bi mooy féetale léppam yàlla bàyyee yàlla boppam lijjanti lijjanti beek lijjanti biir ak biit lépp mu bàyyee ko suñu borom tabaaraka wa taala féetale sa bopp nag ak say mbir keneen moom loolu ka nga koy def day aaje mu mu bari mu muy ku bari yërmaande day aaje muy borom kàttanit day aaje muy borom boromu xam ku dañ kumpa te man laa gindi teeta ba yóbbu la fa nga bëgg a dem loolu lépp nag ci suñu borom tabaraka wa taala la daje suñu boroom ci dëgg-dëgg mooy kii jëf mooy kii jeexital ci lépp te léppi xam-xam daa daje ci moom léppi kàttan daa daje ci moom lépp yërmaane daa daje daa daje ci moom kon kooku mooy kii ñu war a wëkkiirlu dëgg-dëgg wëkkiirlu nit ki nag léeg mu xam lii ñu wax nii xam ne yàlla mooy dajale kattan yépp moo mooy mooy mooy li yërmaande moom ci moom la dëppe ne ko rasulullahi daan waxee xam-xam noonu moo la gën a mën a lijjanti li itam sa bopp waaye du tax nga féetale ko say mbir li ko waral mooy ñaar benn sa pas-pas bu doyadi mën na koo sabab waaye li imaamul Ghazali tudde al jubnu itam mën na ko mën na ko na koo sabab maa ragal ak ak ak ak tiitaange tiitaange kon loolu ci gàttal mooy tawakkul buñ ko misaalee nag ci lay leer ñii ñi ñi wakkirlu seen borom ñetti xaaj yi rek lañ kenn ki féetale na mbiram boromam sunu borom tabaaraka wa taala waaye mi ngi ko defee nii waa ji nga xam ne daa am lu mu bëgg a lijjanti jël ku koy layal mooy li ñu tuddee avocat boo xam da koy layal mu jël dossier am jébbal ko ko ginnaaw ba mu ko wóoloo xam xam xamam xam xereñteem xam ni mu mën a seytoo lu mel nii fii bàyyee gi nga ko mbir moomu loolu xeetu tawakkul la mooy wakkiir nga ko sa mbir mu di ca soppandiku waaye teewut yaa ngi say xalaat di ko topp itam bis mën naa ñëw nga juyoog moom ci xel ak ci xalaat loolu mooy daraja ji gën a suufe ci ci wakkiirlu am na guru ko gën a kawe li ko gën a kawe mooy lu mel ne gone ni muy bàyyee mbir ndeyam nga xam ne gone moom xamul ku may ndeyam bu tiitee itam ndeyam lay njëkk a xalaat saa yu jaaxle itam ndeyam lay njëkk xalaat ndeyam tam la sukkandiku ci anam goo xam ni desulu ci dara lu ko mën a jot itam yaayam lay njëkk a woo képp koo xam ne ni mu bàyyee mbiram sunu borom noonu yi la mel kooku ba tey wakkiiru la goo xam ne mooy nekk ci digg bi nga xam ne moo gën a kawe gañ waxoon ndax kii gone du bàyyi xel ne moom wakkiirlu na maanaam du bàyyi xel jëmmi tawakkul bi xam ku njëkk bàyyee na mbiram waaje waaye xam na ne da koo bàyyee mbiram kii nag moom xamul sax ne moom moom bàyyee na mbiram moom daa sukkandiku ci ci ndeyam rek ci anam goo xam ni amu ci lu muy bàyyi xel ak lu muy seet ak lu muy xolaat kooku mooy anam ñaareel gi kooku moom it mar bu kawe waaye gone léeg-léeg mu yuuxu léeg mu jàmbat léeg-léeg mu kii am na ku ko gën a kawe ki gën a kawe mooy ki nga xam ne ni mu bàyyee mbiram sunu borom mi ngi mel ne ab néew na mu bàyyee boppam ka koy sang ab néew moom amul genn tànn amul fu mu naa jëme leen ma fa wala fuñ ma fa jële moom foo ko jëmale baax na nga xam ne léppam da ko da ko bàyyee ñi koy lijjanti loolu nag mooy li gën a kawe ci tawakkul tawakkul goog yi nag mooy tawakkulu si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu danañ ci jëw insha allahu taala kon ñu gis ne kon tawakkul lu jafe la xam ko moo njëkk jafe jëfe ko doog a ñëw tawakkul it dafa am laale ak tawxiid bu wér maanaam ku amul tawxiit bu sell mënoo def tawakkul ndax ba tey lool it mënees na ko xaaj ci ñetti xaaj mooy ñii ñi nga xam ne gëm nañ yàlla gëm na yàlla am na gëm na yàlla kenn la am na ñoo xam ne gëm googu dégg wér na ci seen xol ñu di ko wax waxtu wu ne di wax ne laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli dégg nga waaye amuñu ci lu leer boo leen waxoon tey ñu ñu indil la tegtal ci amag yàlla gi rek fi ne ñu taxaw xamu xamuñu waaye gëm nañ ko waaye mënuñu ko leeral mënuñu ko leel googu ngëm la waaye am na geneen ngëm googu gën a kawe mooy ki nga xam ne yëmul ci loolu moom daa gis ne lépp li xew ak jëf yi am yépp ak jeexit yépp ci suñu borom la aju mooy mooy jeexital la suñ la suñu mag boo xam ne laysa yakunu fi jamil alamin muathirun fi atharin ma gis ne lépp yàllaa koy jëf ñii nag ay jumtukaay lañ nga xam ne ñi ngi mel ne ay la waaja waxoon araniya kal alaati wa huwa muharriki ana wal iqtidaaru la saabion nga xam ne dañuy mel ne big buy bind rek nga xam ne moom du mooy jëf waaye quartier big ba mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jëf am ñoo xam ni noonu lañuy ñuy mbir yi ñoo ñoo gën a kawe ngëm ñetteel bi mooy ki nga xam ne nag dem na ba gis moom ne jëmmi jëf ci boppam jëf yépp yàllaa koy jëf da ko jaarale ci gaañ yi rek nga xam doomu aadama yi am nañu tànn moom loolu moom xëy na jàng nañ ko ci tawxiid du tax ñu jër ñu ci xóot waaye doomu aadama yi am nañu tànn waaye jëf yëpp ci suñu borom lay bawoo nga xam ne moom ngay ragal moom ngay yaakaar moom ngay wóolu moom ngay féetale say mbir ci moom ngay sukkandiku taw bii dana taw waaye du koy ñoral ne sëñ bu baax sëñ sëñ sëñ Tuubaa bu baax ma danaa wax ne adduna si maanaam asamaan si mën naa dëkke taw te dara du ñor mën naa bañ a tawit te lépp di xéewale nee na ngeen ñaan xéewal mi ngoog ki nga xam ne àgg na foofu da nga xam ne moom day gis ne yii yëpp fu ne suñu boroom a antum tasraunahu am nahnu zaariuuna maanaam baykat yi bay wala wala wala yàlla yàllay bay maanaam jëf yi ca cosaan yàlla mooy moo moo moo yor kattan gi gi yëmul fenn dégg kàttan goo gis rek ak foo ko mën a gis kattan suñu borom la suñu borom ak kattanal kookee ñoom foofu lañ koy gisee nga xam dañuy gis ne lépp ci moom lay xewee imaamul Xasaali misaal na ko misaal mu leer te te am solo mooy waa ji nga xam ne dañ ko àtte ba war ko tëj wala ñu war a war ñu war koo rey buur bi bëgg koo jégal tax mu bind ci këyit signé ci nee nañ ko jégal moom nag muy sant këyit bi ak xalima gi nga xam ne ñoo ñoo bind ñoo bind dégg nga maanaam atte bi di wax xalima gi ni mu kiyee nga xam ne fàtte na xamul xamul maa gisut ne xalima gi ak kii amuñu amuñu doole amuñu kattan mënuñoo bindal seen bopp dañ leen a dañ leen a jëfandikoo ke leen jëfandikoo nag mu fàtte ko moo tax kon mbir yëpp ci dëgg-dëgg suñu borom moo koy jëf loolu nag mooy dëgg-dëgg taw tawakkul tawakkul nag am na ñaari tawakkul yu bokkul am na boo xam ni bu bu baax la ci niñ mën a waxee am boo xam ni nag nag du tawakkul maa tawaakul lañ koy tudde tawakkul dëgg-dëgg moom du génn lee lee ma ko waxe nga xam da nga xam ne sabab yii danga koy jëfandikoo waaye li sabab yi jur yàllaa koy sàkk danga dem ca marché bay jaay da nga yëngu danga def lépp waaye dangay xam ne lii sabab yi jur yàllaa koy sàkk maanaam yow li nga am mooy mumaarasatul asbaab waaye asbaab yi la muy jur yàlla koy sàkk léegi nag tas tawaakul nag mooy nga ne naa bàyyi lépp daal ma daal ginnaaw yàlla moom moo yor lépp naa bàyyi xéewal gaa ngi nii waaye duma ma tibb seex damay toog fi rek bu bu neexee yàlla mu suural ma xam nga loolu fi ne duñ ko du tuddee tawakkul wala nga taxaw ci mbedd mi ne bu neexee yàlla oto dal sama kaw wala bëyoo ba noppi maanaam bëgg bëgg a ñorle ak yu demee noonu loolu kenn du ko tawakul kenn loolu mooy ta tawakkul kon euh, njariñ maanaam sàkku loo dunde loolu ci biir tawakul lay tàbbi ndax dangay jëfandikoo sabab yi waaye xam nga ne li sabab yi jur yàlla koy sàkk ca nam ko neexe fi ne tey loo def ba am dara am na ko def lu ko ëpp te amul li nga am am na ko def lu gën a néew loolu am lu ëpp li nga am moo lay xamal ne kon li sabab yi jur yàlla suñu borom moo koy sàkk yaakaar naa loolu loolu leer na moom la sëñ bi gàttaloon ca waxoon ne fa tarku kasbin liddia tawakkuli ma altifatin fialu xumrin in jëli waalam bi ann alkasba laa yunaafi tawakkulan laa takku itlaafi fa zahiran takasaba imtisaala takasab imtisaala wa baatinan istaslim ittikaala fa innahu musabbibul asbaabi fa qif bihi dahra wa qif bil bi kon loolu mooy gàttaluk lan mooy tawakkul nu ñëw ci nag tawakkul ak ci ak dunduk sëriñ bi sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu xam ngeen ne tawfiq la am tawfiqi sunu borom moo ko gàttandu gunge ko ci biir dund gi ba léppam da ko daa delloo ci sunu borom tabaaraka wa taala mooy jëmm joo xam ne léppam ak jaamu yàlla la ni wax ne kulliyati aabidatun lillaahi léppam daa maase di jaamu yàlla li ñuy wax ay aada sax mosu koo am naw mi qiyaamun ka awraadin kitaabatuna ak li xalaalan yaqi kullil musibaati aadati dahra ibadatun liman lahul baraya wal fiaal wa zaman nga xam ne jëmmi aada sax amu ko maanaam lépp mën nañ daa delluwaat daa da ko delloo ci suñu borom nekkoon ak jaamu yàlla lii tax nga mën a wëkkirlu suñu borom yii ma njëkk a wax ni mooy wóolu suñu borom doyloo ko gëm ko xam ne moom képp mooy joxe mooy xañe itam loolu mën nañ ne ci sëñ man ni ko sëñ bi dundee gis ñu ku ko jëmmale noonu dama njëkk a wax yim ci wax doo ko indi nag ay misaal ci dundam insha allahu taala gis nañ moom jëmmi wóolu suñ borom daa mas da daa mas a wóolu suñu borom moom ci njëlbéen ga ba ci ba ci mujj gi ku xam nam doon dunde ak sëñ Mamour Ande Sali ca jamonoom ak ginnaaw sëñ Mamour Ande Sali jamono joojee ak buur yi niñ ko fonke woon daa dox di ko wut si sëñ sëñ ma sëñ Basiiru nett na ci lu bare bare bare yoo xam ne ay buur yoo xam ne dañoo dañuy dox ngir ma bëgg a amanteeg moom ngir bëgg a jëflanteeg moom tudd na ca buur Saalum wax ne jaar na sax ci sañ Bousso bi ngir bëgg a amanteeg sëñ bi waaye sëñ bi di leen dëddu di leen daw mësta dox jëm ci ñoom gis nañ keroog bi fi sëñ Mamour Anta Sali jóge mag ñépp ànd bëggoon koo booleek buur bi teg ko ci wetam mu gàntal yemul ci loolu buur bi ci boppam yable fa yable fa mbooloo moo koo xam ni rakk ci moom am Amadou mu Amadou mu xëri ma xërija Jóob moom la yebal ci moom ak meneen yeneen i kilifa ñu ñëw ba ci sëñ bi xamal ko ne ko buur bi mi ngi lay jaale te daa bëgg laa teg fa mu tegoon sëñ Mor Anta Sali sëñ bi gàntal nga xam ne ba ko ca yenn mbokk yi yedd ci la def xasidaam gu siiw googee qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa turni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayra alilmi wa diini booba ñaar fukki at ëpp ko limam kon sëñ bi daa teel a wëkkiirlu suñu borom doyloo yàlla te mësu ko yema rek dara wasiqtu bilxaqi alladi laysa yamuut alqaadiri almudabbiri almuxyi almumiit loolu laa dama wëkkiirlu doyloo dama doyloo di nga wóolu sunu borom bi nga xam ne mooy dëgg te moo mën a moo mooy ki am kàttan mooy rey mooy dundal doon doxe ubudiya bu kawe ubudiya gis naa ba léegi Cheikh Abdou Khadir jot na ñu ñu gën ko jàngat ci dundu sëriñ bi madahir ubudiya sëriñ bi maanaam sëriñ Tuubaa da nga gis muy wax zullul ubudiya du lu neex a misaal dëgg-dëgg mooy dayob maanaam wëkkiirlu ci suñu borom tabaaraka wa gis ne amoo dara mënoo dara xamoo dara dégg nga lot nga ci anam goo xam ne itam maanaam sa lépp danga ko jël féetale kook suñu borom durriya lil fardi alladi lam yalidi wa laysa mawluudan ataaba xaladi maanaam toroxtaangeel ubudiya googu mooy sirrub dégg nga kawe wax ne dulli lahu izzati faqri lahu madadi wa kawnuhu li xab i fal adan salaba wakiir lu itam jël lépp wéer ko suñu borom anta wakiili fa alayka attakil wala yadiu man alayka yattakil doyloo ko daa wax ne man suñu borom mooy sappaxnde ko ci man di ko wax ne ko nu la neex man nga koo soppaxnde ko ci man la shakka anna kullama adxaltani fii fa xayrun liya yaa dal minan wa kullama axrajtani minhu fa daaka alayya durrun qad tawajjaha hunaak lépp loo dugal rek loolu mooy njariñ ci man xam naa ko lépp loo xam ne génn nga ma ci itam wala dogaloo ko nga xam ne lii damay xam ne du sag bëgg nee na loole damay xam ne lor la ci man yaa rabbi in aataytanii fa shukru wa in manaata faridan wa sabru boo ma joxee ma sant boo ma xañee itam du yem ci duma ma muñ de waaye damay gërëm faridan wa sabru kenn ci nit yàlla yi dafa ma si wax ma xamul ku mu doon ci moom mu ne ko yéen nangeen ngeen def ak seen waa dëkk ba mu ne ko noo ngay sant yàlla maanaam amee sant bu amut muñ mu ne ko loolu xaji bal balx yi ci ci loolu lañ ne de <laughs> dëkk bi ñuy wax balx moom kay bu boo amut bu la yàlla xañee kay da ngay da ngay gën gërëm da ngay gën a sant waaye bu fekkee muñ loolu moom mala yi nga gis ci lañ ne ay sëñ bi gis nga wa in manaata faridan wa sabru fa manu wal wal minka laa min wa raditu anka daa gisoon ne keneen di la ji la jox sax loolu ak xañ la maanaam maanaam xirmaan la ci gu jóge suñu borom innal ataa min al wara xirmaanu wal manu min rab min rabbihi moo ixsaanu suñu borom bu la xañee loolu ixsaan gu kawe la xéewal gu kawe ngi noonu bu la keneen bëggee jox nag kooku moom mooy mooy mooy ñu nar la xañ dégg nga nga xam ne moom séentuwutoon lenn ci keneen da sukkandiku ci sunu borom lahu ufawwidu amri haahuna wa gadan mooy ci moom anta alladi taasimu man bi kaxtasam min kulli ma ya ummuhu min an niqam laka umuri abadan ufawidu nga xam ne musta ragal kenn mbaa yaakaar keneen ku ma yàlla li mu wax ne lastu axaafu durra xalqin baadama fawwatu amriya ila rabbi sama doyloo ko def ko muy tataam saa yu demee ba nar a jaaxle itam moom rek lay jàmbat suñu borom tabaraka wa taala di sàkku ngërëm itam ngërëmam itam ci lépp ci anam gu ne dëgmal ko te mus la jeng itam wala mu geesu xool leneen Sëñ Tuubaa dara wax ne yaquuduni ilayhi tarku liltifaat maanaam dox bi may dox jëm ci suñu borom daa ànd ak bàyyi geesu maanaam dama dul geesu dégg nga maanaam Sëñ Tuubaa daa bukkutoon ci ilayka aqbaltu bi lantihaayi maanaam dox bi mu doon dox jëm suñu borom ak dëgmal bi mu ko dëgmal daray geesu leneen ak keneen da cee bokkutoon ab doxam it fenn rek la jëm muy suñu borom tabaaraka wa taala asiiru ila dil barri wal baxri aabidan wa lastu ila al fujjaari awdu asiiru di dox bu yéemu itam maanaam dunduk sëñ beeg jëflanteem ak suñu borom lu yéemu la maanaam day gis li mu wax ne fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka loolu sëñ sëñ Abdou Khadre ñoom xëy na danañ ko jéem a tekki bis fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka <laughs> bika alayka nga xam ne léppam dara génnul suñu borom tabaaraka wa ci moom la sukkandiku ca la bàyyi ko fa la jëmaat ca la lu mu amit ci suñu borom lay lay delluwaat dégg nga gàddaay lépp wuti suñu borom tabaaraka wa amri muhajiran lima lima ladayka noonu mi ko waxoon di koo xam ni itam lépp da ko daa askan suñu borom Sëñ Tuubaa da boppam ak lépp lu am wax bind na wax ne joxaat naa ko suñu borom tabaaraka wa taala kulliyati jaaltuha lillahi wadiatan loolu mënoon naa ci indi wax ju bari yum ci wax laka umóor yi abadan ufawidu sama mbir yépp jébbalaat naa la ko ataytuhu kulliyati bila nizaa te du ci xëccoo nag amul lenn lu may xëccooti ak ak moom maanaam aslamtu gis ngeen ko ba tey aslamtu wajhi nga xam ne jëm jëm jëm moom noonu yi la koy waxe ci ci ak dundam lillahi dil arsil azimi umuri jox ko ak dundam jox ko ruuxuk boppam lillahi rabbil alamina ruuxi wa jasadi wa jaada bi tasriixi jox ko xolu boppam ilayka qalbi wa jusmaani kadaka yadi yaa hadiyan lam yazal rabban wa xannaana jëmmi ma ma nafsuum laka jacaltu yaa xafidu nafsi wadiatan lisaaniya wal awsaalu abdan lahu bikum wa awdactuhu ruuxi wa nafsi ma al fiali maanaam léppi boppam da ko jébbaloon su borom xam nga loolu mooy dëgg-dëgg wakiirlu gi ma doon wax nga xam ne moom da ngay gis amatul ba ci ay waxam ak i jëfam ya'la lahu kalaami wa lahu iqbaali wa amali wa li yuniru baali kalaami wa niyaati wa ficli tawajjahat ila man kafaani suua wa durra wa shakka maqaali wa niyaati wa ficli nga xam ne yéene yeeg waxam ak xelum boppam ay xalaatam ba ci ay yi toq ci xelam ci xawaatir lahu xawaatiri lahu anfaasi bi xeyri isyaanin wala ifaasi ay pas ay xam-xamam yépp gis nañ mu di ko jël di ko dellowaat suñu borom di ko ko jox addiya génn ci lépp ba ci ab doxam ak demam ak dikkam lahu dhahabi wa bihi ruju'i lahu tadarru'i lahu khushu'i laka lahu irtihaali wa ilayhi sakani nga xam ne léppam dara da génnut suñu borom ko wa taala këram yii mu sañc nii rek ci misaal yépp da ko dellowaat suñu borom maanaam kër goo xam ne da koy delloo xam nga li fi xewoon mooy kër diw sàngam walla sant sàngam ñu ñu askana leen dëkk ba dëkk bii mu mu gane àdduna nga xam ne ay maamam a ko sanc mooy mbakke Bawol gis nga Mbàkke nangam na wax Mbàkke Saañanka Mbàkke Xewar Mbàkke Kajoor mi ngoog waaye moom dëkk yam njëkk a sanc gis nga Daaru Salaam lay wax kër yàlla la Daarul Quddus Daarul Mannaan Daarul Rahmaan daarul alim al xabiir ba ci tuubaa gi nga xam ne nag moo ëmb lépp nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy àjjana ju mag ja daarul minan daarul karim daarul qadim mag ñi mu doon jox ay ay turi dëkk itam gis nga lim leen jox daarul qadim di jox daarul karim daarul mu'ti daarul rahman muy muy dem nga xam ne kër yëpp yëpp dëkki suñu borom la tabaraka wa taala suñu tubaab daa jàppoon ne lépp yàllaa ko moom amul lu keneen di amaat lahul baraaya lahu afaaluhum wa lahu jalla alwujudu alladi qad zaana qad zaanaha alqidamu lahu alsamawatu wal arduuna wa ma baynahuma mimma badana lahul muluuku wa lahul atbaaw buur yeeg ñi jàpp seen bopp buur ak ñi du buur ak kilifa yeeg ñi dul kilifa ñépp noonu la ko jàppoon xam nga lool na kon foofu la ñuy dégg kon dëgg dëggi tawakkul nga xam ne tëdd biir ci moom fi ne gis fu bari mu wax ne daa bàyyi li ñuy wax tëdd biir nabastu xawli wa nabastu quwati bika fa biya bashir sarian ixwati maanaam jéem a am lijjantib xel tëdd biir mooy lijjantib xel bi ngay lijjanti sa mbiri bopp loolu neen da ko jaayante loolu gis nañ sax fu mu wax ne da koo jaay dégg nga li ko yàlla jox itam muy ay xéewal loolu dañuy gis lépp it mu delloowaat ko suñ borom li ko yàlla man loo ci misaal Sëriñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ni mësul la def lu naqar yàlla du lu ñu sib waxuma laak lu xaraam waaye loolu it da koy delluwaat sax ci suñu borom ne suñu borom dégg nga moo ko ko tawfiqal sabartani anil xaraami qablu wa fitnatu naasi mahad wal kablu sabartani an kulli makruhin ni gariban atabtal xalada sabartani an kulli ma la yanfaau min al mubaaxaat sabartani ala imtithaali amrika def gi muy def ndigal yépp da koy delluwaat suñu borom tabaraka wa taala xam-xam yi mu am ak Sëriñ Tuubaa mooy ki gën a dégg luxal arabiya bii moom waaye gis nga day wax ne allamani naxwa ma al arudi man qaada lil aadama fi fi qaridi maddaliyal bayaana bil maani dul maanawiyati wa dul e, maani nga xam ne lépp da koy delloo ci ci suñu boroom fiq euh, ngiiri fiq yi itam xam ngeen ne daa wut lu woon téere yi Cheikh Abdul Alawi moo ko wutali woon ca Égypte mu jàng ko itam téere yëpp géeju itam mën nañ ne ci ñeent ngir yëpp waaye gis nga da ci sant yàlla di wax ne sunu boroom a ko jox fiq boobu yi warastani fiqh al imaami malikin alayhi ridwanu ilahi maliki ak nam ko waxee ci yeneen ngir yëpp kon kooku ci gàttal foofu la sëriñ bi nekkoon nga xam ne moom mësta gis ne kenn dana jeex jeexital ku dul sunu borom tabaraka wa taala mësula gisit dégg nga kenn ku am kàttan ku dul sunu borom tabaraka wa taala loolu ngir ñu am ay misaal ci dundam mën nañoo tàmbale ci li sëñ mët la mu nett li ca euh, nubzatul mubaarak ne sëñ bi ci moom moo ko nett li ne ko moom bi muy jàng ci sëñ Mamadou Anta dafa yàgg bëgg a liggéeyal sëñ Mamadou Anta te sëñ Mamadou Anta fonk ko fonkeel goo xam ni muy ko woon mu defi leneen nanguwut mu dem yi ñeneen ñi def lijjanti lenn muyu ko ko woon da ko téye woon ci kër gi daanaka toolee sax muyu ko woon mu def ci nee na ma seet seet lu ma ko mën a liggéeyalee loo xam ni bëgg naa daal loo xam dinaa ko ko defal waaye yàlla ubbil ma buntu liggéey nag buntu xidma noonu la ko tudde ci moom mooy ne booba damaa mënoon a bind nee na ñu di ma bindloo nga day ñëw xam nga bu njëkk téere yii nii ni koy amee da koy bind xam nga ci loxo ba mool bëreegul waaye nee na ñu am ñu bari ma bindloo may def nag lépp lu ma ci jox ma jox ko sëñ Mor Anta Seck nga xam ne nee na alal ju ci ñëw léeg nit indil ko loo xam ne da ak ci moom waaye sëñ moor bu ko fekkee ci ëtt bi laaj ñu ne ku moom lii ñu ne sëñ Cheikh Ahmadou Bamba day xam ne alalam la moom ju ak segul sëñ Bassirou wax na ne àgg na ci yére yu yees sax bu ko amee da koy jox addiye sëñ sëñ sëñ Mor loolu misaal la ci ba muy dem ca ba mu àndeek dégg nga naar boob yi nga xam ne moo indi woon bidayatul hidaaya bu imaamul Ghazali sëñ mat la mu nettali ko ba muy wër ak moom ba dem ca taalibe bi sëñ Mor Anta Sali boobee taalibe bi sëñ sëñ sëñ bi ci moom moo ko nettali nee na bi mu ko gisee rek dafa ko woo ci ca néeg ne ko mbub mii nga sol ak ni doy waar nii nga jële ko foofu ba fii daal gaaw lijjantil ko meneen mbubb jox ko ne ko gaawal sol mii nee na sëñ bi nee na ma denc mbub mu màggat ma fa ñuy jaar ca yoon wa biñ génnee ma laaj naar bi ne ko ndax mbub mu yees mii bu ma la ko joxee nga mën maa jox mu ne ma waaw nee na ma jox ko mbub mu yees ma jëlaat sama mbub mu màggat moomee waaja nga xam ne mbubb mu yees sax bu ko amee da koy da koy sëñ sëñ Basiir wax na ne euh, majlis bi sëñ mët lamin bis bi sëñ Maamoor doon jàngale bu fa masaa di jëw nee na ca ginnaaw lay lay lay lay toog ngir yéere yu woyof yi nga xam ne moom la doon sol te mënoon naa am yu yees waaye lu mu am da ko jox sëñ Maamoor ànd sali buñ jàngee ba noppit nee na bu ko sëñ Maamoor soxlawut ci lenn day dellu ca ab néegam kenn du ko ba ëllëg loolu foofu la nekkoon ci woyofal àdduna sëñ Basiiru nett li na ne borom Daaru Muxti nett li na ko ne sëñ Mamor mas naa ànd ak ñoom ñaar dem Pire ci sëñ Demba Fall nee na bi ñu demee sëñ bi moom nanguwut a dugg nekk ci biir ci biir dëkk bi waaye daa génn ca biti dëkk ba xam nga sëñ Tuubaa fa mu nekkoon sëñ bi foofa nit dootu fa gaaw nit dootu fa nekkee kanaaw am na loo xam ne sëñ mët bi nett na ko nee na sëñ bee ko ko nett li booba sëñ Mamour Anta Sali la àndal cib tukki nee na ñu dem bay dëpp sëñ Mamour ne ko am fum ko yónni ne ko nga fekk ma kër sëñ Boubacar Fall sëñ Boubacar Yëri Fall dégg nga ne ko nga fekk ma fa nee na sëñ bi nee na ba ma leen fekkee moom ak alxaadi ma jaxate kale ak alxaaji Ibrahima al Fuuti ñoo bokk toog ci lal bi waaye neen damaa fekk booba ñuy defar xéewal yi ndeke booba buur bàyyi waa ji ñëw ci dëkk bi nee na foo toll xetu ndawal gi di la di la xeeñ nee na xet gi xeeñ gi may xeeñ rek maanaam mënatumaa nekk fii ci dëkk bi moom waxuma laa nag di ci xewlu moom nga xam ne damaa gaaw génn dem ca tóokóor ya ca biti dëkk ba toog fa <laughs> foofee nee na la ndaw ñëw woo ko ne ko kaay wuyu alxaadima jaxate kala fekk alxaaji ibrahima baxdaadi di wax ay day doon ku mën a mokkal bari xam-xam di wax ay ay ay ay mbir yu yéemu xaadi woo ko ne ko kaay bindal ko nee na bi mu agsee xaadi daa damm ci sàkket bi ne ko sëñ Bàmba bind bind bindalu jox ko jox ko xalima gi waaye sëñ bi nee na xaat yi damm gi mu bantu xat bi ci sàkketu jàmbur bi te mu wóor ma ne du këram fii te waa ji amu amu ci ndigalam nee na loolu xaw tuut ma xam fii ma toog <laughs> nee na bi ma xaadi joxe kii bi taxul ma bind ci dama wax keneen ne ko wutal ma foofu ci biti bant ca àll ba foo xam ne su mën a kii nee na yi bi mu ko gisee daa reetaan maanaam sàmm googu yi foofu la nekkoon beneen xise bii ma doon njëkk a nett li itam nga xam ne sëñ Basiru nee na borom Daaru Muxti nee na ko booba noo ànd waaye neen daa génn dëkk bi itam dem ca biti nee na nga xam ne boobu sëñ bi mu ngi jàng ci sëñ Mamadou Anta Sali ci jamono yooyu ci njëlbeen ga nee bi waxtu jàng jotee nee na mu ñëw ci dëkk bi romb ay nit ñu nekk ci seen ker di waxtaan am ku ca jëw sëñ bi ku fekk mbokkum sëñ baa ngee fa koo xam ne mbokk la sëñ bi waa ji ne ko waaw kii mooy seen mbokk moom mi nga xam ne xel xel mi kii nee na ñu ànd reetaan bañ demee ci la ci sëñ bi def xasida goog yi tàmbalee qaalu safihun li sarfi dafa bokkut ak ñoom fu xool <laughs> li sarfi anhumu basari qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an ilkawni fi safwin wa fi kadari qaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki walam akun lil baraaya ashtaki darari dama bukk ak ñoom ay jëmuwaay ndax man duma ma jàmman mbindeef dara duma xool daray àdduna itam yàlla rekk laa teg bët moo tax ñu ne ma sa xel neexut qaalu safihun li kaw nii lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa rahmaani dil qadari dama yaakaarut ku ma yàlla rëgaluma itam ku ma yàlla ba na xasida ga jeexee foofu la nekkoon ni ma ko waxee léegi ginnaaw sëñ Mor Anta Sali gis ngeen mag ñi bëggoon ko booleeg buur bi buur bi sax yónnee fi moom te taxul mu geesu loolee bi muy dem ci tukki bi boobu mën nañ ci jël misaal te soose moom yi nga xam ne moom bokkoon ci soldaar yi ko doon yóbbu bañ dee bay jub Louga Louga dafa am ci soldaar si ku ñëw ba tollook moom ne ko sëriñ bi dey lépp loo man ci ñaan ak i sekkare dégg nga booy bu nga gaaw def ndax kat tubaab yi ñi jub nañ leen te ñoom seen yitte mooy maanaam ci yow rafetul seen yéene ci yow du yéene ju rafet moo tax loo man ci ñaan booy ba nga def ko loo man ci ay sekkare ki yëfitam loo xam booy bu nga tàmbali ko def moom waaye neen sëñ bi dane ko sunu boroom jommante naag di umpule ak di ñàkk teewe teewee nee na soose nee na ma dabaat ko wax ko ko mu waxati ma loolee mu ne cell mel ne ku ma faa dut ba mu yàgg mu tontu ma lool ne ma suñu borom na ak ba itam mu tontati ma lool ba demee ba àgg nag Louga wala Ndar ci nettali bi neen daa ñëw moom ne ko yow de li ma la wax ak li ma tontu mu ne ko loolu de li ma jublu mooy sunu boroom daa wuutewut dara te umpalewut dara te mooy kiy jëf ca dëgg-dëgg te dara du xew lu may ci ab dogalam su ma naree seetaan sama digg ak yéen ngir ngeen jëfandi jëfandikoo ci man lu ko sob loolu bu it kenn mënu ci dara bu da naree dox sama digg ak yéen it kenn du ci man dara moo tax ma la suñ borom bàyyee naa sama mbir euh, ci moom te lu mu dogalit neex na ma foofu la nekkoon boo gisee tubaab yi ni mu bay ni ko ni mu bay li ko ci seen ci seen ci seen kanam te jamono jooju maanaam bu bu mënoon naa def na kilifa yu njëkk yi defoon mooy xeex ak tubaab yi te bu waay itam tubaab yi maanaam duñ ko gañee ndax ñu bari ci ñi ànd ak tubaab yi booba fonk nañ ko fonk koo xam ne bu jàmmarlu tubaab yi dégg nga ñu ñëw ànd ànd ànd ànd ak moom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 suñu borom da ko wëlbati ci biir dégg nga nattu yooyu yi ba mujj nag muy wurusu ngalam woow yi nga xam ne da caa jóge mel ni jant ba tey bu fekkee ne waxtu wi kii na rek sëñ waaw maanaam mm, ba tey ci ci ca gaal ga wax na ne bi mu demee xam nga Sëñ ci tooñ lañ ko lañ ko jëlee fii mag moo xam deful la dara waaw <laughs> ah, sëñ Mbàkke Buso loolu ma wax ne walam yaqul walam yuridi ni mu ko waxate kam sibyatin wa dawaatil xidri daaiatun bi nafi cheikhin walam yaqul walam walam yafaal walam yaquli walam yafaal walam yaqul lu mel noonu mooy jëmm joo xam ni waxul deful dégg nga nga ñëw jël ko bañ ko attee ca ndar dañ ko wax ne ko defoonu dara waaye teewul dañ la yóbbu bañ ko jëlee ndar itam gis nga ndakaaru la dem ba mu demee ndakaaru maanaam mënoon nañ ko def ni ñuy def ñi ci des yóbbu ko fu baax waaye dañ ko yóbbu ci néeg bu xat bu doy boobee nga xam ne moom ci moom na mu koy nettali rek da xam ne moom fee sonni na fa moom. waaw nee na am na lu ma fa jëlee loo xam ne duma ma tàggoog moom ba faw am na ñu ne mooy léget boobee nga xam ne ba mu duggee ràbb nga ko jam te loolu ci biir gaal gi ñi ko ci gis wax na ne gis nañ mu takk tànk bi bi mu ñëwee ba ci gaal gi am na dégg nga ku koy léebiri ko comme suñ bee ko nettali wax ne am na ku ñëw di ko léebiri wax ko ne ko am na ci tubaab yi kilifay tubaab yi mooy ki jiite woon AOF jiite maanaam maanaam ñi ñi ko doon atte ñépp agsi na Ndakaaru boo ko bindoon leetar mën naa fi ne ñu bañ la yóbbu sëñ bi nee na xaw tuut ma yëkkati sama xalima maa yëkkat naa sax sama xalima nee na ba nar a bind waaye dama jege am kàddu gu jóge ci kaw ne ma atarfau xaajataka ila maxluqin mithlika duuni sa yitte daal tey kon da nga koy da nga koy da koy da nga koy jëmale ci mbindeef mu mel ne yow nga xam ne yow mbindeef moo xam ne miskin la amut mënut moom ngay moom ngay sàkku ci moom nee na ma daal sànni xalima ga foofee nag la defee dégg nga euh, geneen xasida goo xam ne da cay jégguloo suñu borom tabaraka wa taala géej gi yépp fi ne boo seetee taw ah, ah, madahiri tawakkul da cee bari bi mu dem ba daaw me gis nga nee na bitalub sikki boo xam ne dama ko yoroon di ko waa jëfandikoo ndax sëñ bi xam nga daa fonkoon gët waaye nag fi ma ko yoro rek am kàddu gu ne ma sànni ko nee ma daal ko sànni ci géej gi waaye bañ taxawee daaw me nee na mbooloo ñëw kenn ku ne nuyu ma jox ma bitalub sikki la la la la la meloon sëñ sëñ sëñ mët la mi ak sëñ Bésir yëpp nettali nañ ne am na tubaab bu ko mës a dig maanaam biti maanaam daaj yi muy bindee ndax boo waxtoon day bind am tubaab bu ko ci eh, dig ab pot waaye man nee na taxul ma aj sama yaakaar ci moom ba nee ba waxtu wa jot nag nee na yàlla dimbale ma ma naroon dem sax ngir jëli daaja waaye ma dégg waa ji di xuloo keneen koo xam ne moom it daa am lu mu ko diggoon te jox ko ko ma santaat yàlla xam ne suñu borom moo bëggut ma ma ma aajowoo kenn wala ma sàkku ci kenn lenn ci la def na xasida ak ala innani usni ala xayri munimi wala ashtaki lil xalqi min faqdi anumi fa man dannani fi gurbati daa tadalludin daa tadallulin ila gayri mugnin waasiin fa huwa qad ami nga xam ne lahu astaki dufi wa faqri wa gurbati wa arju rujuci aajilan xayra munami ane moom yàlla rek lay jàmbat yàlla rek bàyyee mbiram amul kenn ku muy sàkku ci moom lenn nee fi ma gën a bàyyee jàmbat sax keneen mooy bis dafa am bërëb bu mu nekkoon boo xam ne yàgg na fa lool mujj nag sama bakkan nara dem ba nara daal yëg ne daal bërëb bi daal yàggaay bi daal xaw a mel ne lu bëgg a jàmbat moom bakkan bi ci xelam rek nee na suñu borom yabalal ko ay xeeti ay xeeti maanaam maanaam xorandoom yoo xam ni dañ koo sàmm di ko mat te suñu tubaab mooy koo xam ne moom daa jaayante woon bu ko dara dee matt du ko faxas ndax bu ko faxasee man naa faatu xam nga. waaw fii ci ba ci fii ci njëriñ. Eh, mag ñi daal nettali ne léeg-léeg nga gis tànk bi fel yi ci boppam sam ko di ko matt di ko matt nga xam ne dootu gisati lu bokk ci jëmm ji ci ay fel rek waaw li ma ko li ma li ma mas a dégg ne benn naar gànnaar boo xam ne ma naa toog ak moom fi mu toog nee na kenn mënta toog fi nga toog ndax fel yu bari kenn ku ne wëlbati ko ak di kii waaye ne sëñ moom fa mu ne dégg jugu fa waaye nee naar bi yëmu ci loolu daa gis fel yi di ko matt ba ca digg bopp nee na mu seen fel yi sam ko nee na mu jege ma hada waa lii moom ak wilaaya la wala sëñ bi ne ko tarbiyatul xayi alladi laysa yamuut laysat ka tarbiyati xayin qad yamuut moo tax foofu yi la nekkoon léppam da koy day daal day da koy delloo ci suñu borom tabaraka loolu mooy kamaalu tawakkul gis nañ jàkkaam jooji yi nga xam ne ñeenti bant yu mu defoon ci buntu néegam tubaab bi ki jiite woon camp bi ñëw falaxe ko yelli say ñëw di di di di di di di xulóog moom nee na fasaase bi ñuy xuloo fi laa tàmbali xasiid ak rabbana axrijna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha wajal lana min ladunka waliyan wajal lana min ladunka nasiran raditu an ilmawla nga xam ne daa gërëm suñu borom booba raditu an ilmawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba bihi qad ganitu alyawma abdan bi dikrihi wa anni yakufu alaara wannaara wasabba mi ngoog kooku mooy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu gis nañ maanaam tubaab yi kuñ mës a jàpp am na lu ñu la warlul ci ci loo xam ne nga ci mën a dund ci weer wi xaalis boobu yi nag sëñ bi moom mësu koo nangoo jël moo tax maa ma gis nga weer na fa woor na fa weer woo xam ne dégg nga nee na maanaam dara duggut ci gémmiñam ba weer wa jeex lu may maanaam xobi garab yii ci àll bi moom la daa dagg di ko di ko di ko di di ko doge kooram ak yi ci àll bi kon mel na ne waxtu wi dem na kooku mooy Sëñ Sëñ Tuubaa am na ñaari mbir yoo xam nag daquntuwut ak tawakkul lu mel ne fàggu lu lew wax naa ko ci njëlbeen gi beneen bi mooy nag mooy ñaan Sëñ Tuubaa dañuy gis muy ñaan waaye yàlla rekk lay ñaan dañuy gis muy jàmbat waaye yàlla rekk lay jàmbat boppam gis nga sayyidina yaquba daa wax ne innama ashku bathi wa xusniya ila allah loolu ci ci biir ubudiya lay tàbbi moo tax sëñ bi moom fi ne bu demee ba mbir mi metti ba metti nag léeg lañu gis dégg nga mu woo suñ borom nga ca jeewal ba mu génnee këram dem dajeeg ñoom ci jëmm joo xam ni moom maanaam mësta jëflanteek ñu mel noonu dem ba jub dégg nga ñoo xam ne ay soldaar yoo xam ni ak ay tubaab yoo xam ni seen yéene ci moom du yéene ju baax ni ko soose waxoon léegi mu wóor ko ne ñii moom ay soldaar yoolu seen kii gis nga soldaar bi borom daal moo tax sëñ euh, maanaam lëkkaleer ci boom rapport bi mu def wax na nee na bi mu ñëwee dama ko doon xupp moo tax damaa tiire ca kaw doon ko xupp wut ay ay kii sëñ Tuubaa ba mu leen ba mu leen jubee gis nañ foofu mu woo suñu borom tabaaraka wa taala wax ne is naadaytuhu bi yaawali ay minni llaahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaawali naajaytuhu bi yaa ya wali kafaytani iblisa inda jeewali mu woo metti waaye gis nga léeg-léeg rek mu ne mu ne rasulullahi axis nii axis nii yaa shafii wasilati ak tawakkul bi ñu doon wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Ahmadu mel na ni waxtu wi dem na bu yàgg sax waaye kenn ñëwul woon a dagg waxtu wi ngir waxtaan wi solo si foo ko takk weesu na ko waxtaan wi nag ñun ñëpp ñoo ko dégloondoo muy waxtaanu tomb bu ama am solo waaye bu kawee lool ndax léegi rek bi ñuy tàmbali la naan sëriñ bi ndax tawakkul moom neex naa roy sëriñ bi waaye li ma ci tegal rekk mooy li feeñ ci waxtaan wi mooy tawakkul moom ni ko sëñ Tuubaa dunde neexuta roy sëriñ bi waxtaan wi nag sëriñ bi def na ko ci juróomi xaaj leeral na lan mooy tawakkul leere na tamit tawakkul ni mu dikkee ci alxuraan ak ci xaadisun yi nga xamante ni benn bu ci nekk indi na ci ay adilla leer na tamit maanaam diggante tawxiid ak tawakkul bi mu noppee nag ci la ñëw ci tajalliyaatu tawakkul inda cheikh alxadim ni sëriñ bi feeñale tawakkul ci ak dundam joxe ci ay leeral waaye lim ko tënke mooy sëñ Tuubaa moom ni mu waxe rek mooy kulliyati ibaada sama lépp ak jaamu yàlla la ba taalif ci ak naka noonu tamit mbiram mépp ci yàlla la ko daan wékk ku ne gis na ci biir xasida yi baatub aslamtu kulli ak wajjahtu wajhiya ak wajjahtu kulliya lépp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la ko daan delloo naka noonu tamit ku ne gis na ni ci biir tukki bi jafe-jafe yi mu fi dund tolluwaayu noon yi ak seen pexe yu bari waaye léppam daf ko daan delloo ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu daale na nag diggante bi am diggante ñaan ak tawakkul ndax lu mbiri jafe-jafe ndax ku ne xam na ni alxuraan moo wax ni ñaan leen ma ma may la moo tax sëriñ bi moom bu mbir yi masaana metti masaana tar day delloo borom subhaanahu wa ci ñaan naka noonu tamit ñu bañ a jaawale tawakkul ak kasbul xalaal ndax sëriñ bi ku ne xam na ni ni mu wàkkirlu woon ci yàlla daan ko dund noonu la daan soññee ci ñu liggéey kon sëriñ Ahmadu jërëjëf noo ngi lay sant ci turu daayira muqaddamatul xidma yépp ci waxtaan wu am solo wi gànjaru gi ak ni nga xamante ni noonu ngay jàngate mbirum sëriñ bi rawatina tamit tom bi nga xamante ni indi nga ko kon ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla subhaanahu wa taala weer wi ñu nekk lépp lu ñu ci def ci ay jaamu yàlla yàlla ñu ko sëriñ bi nangul ci barkeb Cheikhul Xadim sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno ak sëriñ Assane ñoom ñëpp sant nañ ci taxawaay bi ak yitte ji su ko defee ñoo ngi yëgal mbokk yi jataay suba bi ndax ni nga xamante ni noonu lañ koy defee tey jii di ñeenteelu jataay bi suba mooy jataay bi nga xamante ni nag danañ ko ànd ak imaam Serigne Issa Gueye muy tomm bu am solo muy nekkuk sëriñ bi ci Thiène Jolof muy tolluwaay bu am solo ci bi nga xamante ni sëriñ bi nekk na fa ak jeexit gi mu def ci yoon wi ñu fa yéene ci ànd ak imaam Issa Gueye kon loolu moo nekkoon jataay bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu